day wax lim man maandu ci lim mënul ba pare tamit di soññ boppam di soññ yeneen moroom mu sëriñ si kooko di kañ sëriñ Modou Guèye diwaan Silla mu sëñ Kara Silla sëñ mu Modou Guèye diwaan Silla mooy sëriñ bi nga xam na que mii ci almadi moom rek laa invité gun sëriñ boo xam ne que almadi la dëkk kon nag dëkk Fass Mbao baax na dëkk Malika baax na dëkk Pout baax na dëkk pikin baax na mais daal sëriñ bi mi ngi almadi man daal këru almadi moom a gënal këru faneen fii ci biir dëkk bi moom kon moom la ko yàlla baaxee bu baax a baax dafa dal ci kaañ wala kaala kaaña dal ci kaw sëñ Mour Gueye Diwane Sylla yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyoog àdduna war nga këpp bi lay seetaan auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim tansantu bi sin suradiqi ahamun waliyu haykaya wa taxaratu bi sayfil xisati saqakun samihu talmasalaya وتدرعت بدره الوقاية حلاه حق حولك الويا ودخلت في كنف الكفاية يسن كنت الكيا من شر كل إنس وجن وشيطان مريد ñu ngi nuyu sunu xalifa général de Mouride sëriñ Mountakha Mbacké Bassir di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te di nuyu sama kilifa sama mm-hmm. sëriñ sëriñ Modou Kara Sylla la mm-hmm. di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te tey nag seex. Mhm. xam-xam dëgg dina feeñ tey. tey dinañ waxtaanee xam-xam bu soobee yàlla. allah loolu nag daam loo a wane ci émission. waaw non du ma man du wane dara ci ci lu nit ñi gis. Mhm. waaye dina bari luñ ñu waxtaanee daal ci ci ci tolluwaay réew. ci tolluwaay réew waaw. kon kooku mooy Serigne Modou Guèye Diwane Sylla sëñ Modou Guèye Diwane Sylla doon koo xam nag euh, émission day neex. day am solo bu baax a baax a baax a baax a baax ci njëriñ. sëñ Modou Gueye Diwane Sylla yow doon koo xam ne que sa émission kenn du ci doyal. kon ku may laajaat numéro bi numéro bi moo nekk noonu ma bind la ci écran bi nga jël bu baax a baax a baax a baax bind bi leer na te dijj na sa bët yi amul problème rek li ma wax amul problème 77 872 41 94 77 872 41 94. 77 872 nag lu 8 ak 7 ak pour ku déggul daaj 41 ku dégg daaj ak ku déggul daaj yëpp man na ko bind 94 mën na sonal ku déggul daaj mooy 9 ak 4 beneen bi numéro bi mu yor depuis mu nekk daara ja 76 329 50 99 99 dina sonal ku déggul daaj mooy ñaari 9 76 329 50 99 Serigne Modou Guèye Diwane Silla nekk ci Almadi léeg-léeg mu nekk Touba Euh, mais almadi daal euh, nekk mooy sëriñ bi nekk ci almadi ku mën na ñu ñëw toxu si fi wala nga wut si fi kër nga diis ko soxla lu ci man mu def ko la leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te man na lépp sëñ Mor Gueye Diwane Sylla <laughs> euh, nga ne da nga bëgg a soññee da nga bëgg a wan ni kii wane xam-xam loola metti ci dëkk bi ba nga bëgg a wax nii waaw man day su ma ko mënoon waaw xam nga ne yow loolu bu ma ko waxee lu wér keng la waaw ndaxte sa seen bii li tax ma di fi ñëw mm. yàlla dafa dogal ñu xamante man ak yow ay xamante nañ lu yàgg. boole ma ak ay nit sax te ñëwuma fi. Hmm. yàlla dogal ma ñëw fi ba ma fi ñëwee léegi it yaakaar naa kenn mosu laa woo kalaameñ. Hmm. ma sam. bu fekkee ne nag maam ki toog ci nguur gi ci réew mi dafa waroon a def benn woo sëriñu Sénégal yëpp. Hmm. man nangu naa doon première. li nga xam ne sëriñ ci dañ koy def di ci lekk alal nit ñi. yow leer na loolu loolu su ko waxee man naa ko. bu ko neexee mu ma indi ñaar ñoo xam ne xaw leen ak lu mu a doon ci rek. Mm-hmm. mu ne lii def ci ko defoon rek maanaam buñ ca paree sëriñ boo xam ne lañ la wax defoo ko mu leer na yow mi xam ne ne yow test na la ci ñetti ñetti mbir yu ñu la jox yoo xam mm-hmm. mm-hmm. ñi pour teg leen ci yoon lañ la war a yi jaay tey dañ leen di dagg ay yi ñun sama moromi sëriñ yëpp amul sëriñ booy gis te wër oto bu seer wala nga am kër gu rafet waaw état bi dafa sëriñ ci du yomb nag. du yomb de mais lu war a am la loo xam si ni bépp sëriñ boo xam si ni yaa internet man nañ ko tàmbalee nañ ko njëkkee ci man. nañ ko tàmbalee ci man bu leen hmm. mooy wàllu wala ma bàyyi ma nga laaj ci rek. waxal waxal waxal ci wàllu noob ak tasxiir. Hmm. giñal naa la ci sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ne bari na sëriñ yu baree bari yoo xam si nii. Hmm. soo leen ko santoon duñ ko def. yombul daal te yow yoon nga wax ak la wax ji maayaw ñu seq ko man ak moom ma liggéeyoon ko guddi mu xëy wala ne la gis na résultat. ah sant yàlla waaw. Ah, léegi léegi tey ndax est-ce que nit mës na la woone la suñu mudu gay def ma dama koy wane ngu ma jëloo def ma boleke amul. Hmm. dama bari na nit ñuy wax ne sëriñ de sëriñ daf leen a boleke wala sëriñ daf leen a nangu leen a jël. waaye de moom da ngay jël léeg-léeg mu vidéo nit ki fii laa nekk maa ngi ci àll bi maa ngi ci kii bi. man su ma nekkee ci àll bi dama la koy wax. Hmm. su ma lay liggéeyal dama la koy wan. Mhm. moo tax lee léeg bu nit demee bay bëgg a jàmm mën a ah loo xam ci diw mën a ko jàmbaar laa xam ci moom. Ah. ak maandu ak série ah. ba temps yi am na benn maire sax bu may envoyé ay kéek yu mel noonu. Ah. mu wax ma ne ma loo xam ci nit mën a ko jub laa xam ci moom. Hmm. mu ne ma ah mu ne ma daf ma doon ñaanal de lii sotti na ba mu dugaat ci lii wàllum kii dugaat ci xam nga nit ñi tamit mooy li ma leen wax rek. nit ku ñuul moom daanaka lii di xaalis. ak jigéen ak pouvoir. luñ ci am rek dañu bëgg lu ko gën a rëy. côté boobu moom doguma la. Hmm. nit ñu baree baree baree bari fi ne man loolu comprendre naa ko. Hmm. lu bari buñ ne laa sëñ Modou hmm. ñu ngi lay ñaanaloo mais gëmuñu la 100 pour cent. ndax jaar nañ foo xam ne kiriyaan nañ leen wala nax nañ leen. loolu moom man du ma ci sikk nit ñi ndax it. ku ndóobin ray sa maam. loo gis mu ñu da nga da nga daw. loolu la rek am na ci ñoo xam ne amuñu problème te ñaan dafa ànd ak gëm-gëm daf ci am solo. ki ngay ki wax noonu bu dee wax ëpp na ñun ñu ñu ñaanal ñuy am résultat bari nañ. Hmm. non dara. nee naa la. mooy li ma wax nit ñi buñ bëggee moo tax lu ma ku bëgg de man ku bañ mer laa jiital. nee naa la parce que buñ mën nga ko yéex a yëg mais buñ mere moom faaw nga yëg ko. la seex ñaan. Hmm. bu tegee ci yoon dara gënu ko metti ci àdduna. Hmm. bu tegewul ci yoon nag lu yomb la. lu yomb yomb tayit ni ma ko gisee it pour nit dugg ci it di triané dafa yomb. Mhm. ndax bu fekkee xaalis bi day ñëw rek te yow xaalis bi rek la tax a jóg yomb lool. Mhm. ndax it bu dëgg yàlla fi ne jamono dañoo toll jamono boo nit ñi dañoo sonn. Mhm. nit ñi dañoo sonn. Ah, man daal maa ngi gën a soññ sama mbokki sëriñ yi. duñu ay sëriñ sax ay borom yu pexe lañ xam nga sëriñ dafa jafe. dafa jafe sëriñ yombul de. <laughs> sëriñ yombul de bari na sax. ñu fi ay sëriñ jur waaye doonu ñuy sëriñ. Mm. sëriñ dafa jafe. Mm. xam nga bokk ak nga def say pexe rek yor turu. Mm-hmm. turu jinne wala rawaan wala xuddaam yor ko di ko sikar muy tàggat ni ñu ñu ñëw ngay faj seen ajo loolu bokkut ak sëriñ bari na sax ñu ñuy ràng te duñ sëriñ. Mm-hmm. sëriñ yombul de bari na ñu ñuy ràng topp leen yaakaar leen àdduna ak àllaaxira sax te duñ ay sëriñ. mais jinne ban moo nekk ci moom gis ne sëriñ si ñu bari dañuy valoriser jinne ko am na ñoo xam tam dinañ dal ci kaw jinne ne du dara mais senegal léegi dafa mel ne ba léegi jinne mi ngi koy yëm daal yow am nga jinne waaw man de xam naa lu bari ci jinne ndax. xam nga ko mais amoo ko. ah aw jinne yu may gis de wax dëgg yàlla. amoo jinne yooyu gis gis ni jaxarande aw ma ko. waaye nag dinaa jëflanteeg tur mu jëf-jëf yoo xam ne si jafe jinne la. du doon nag lu may gis jaxarande mu may jàmmal wala dara non non. Mhm. ndax wax jafe bari rek mais. Mhm. mën nga jël tur sax riyaade ko topp ko ay at. mu lay indil ay gént gént yooyu nag mooy dama dem ba mu indi nga gisante ak ñoom jëxëran mm-hmm. moo tax ñu néew sax néew na sax nga gis sëriñ buy def yenn yu garaaw yu dëgg dëgg dëgg dëgg man mm-hmm. nga topp tur topp ko ay ati ati ati at mu dema dem ba rawaan yi dañuy dem ba dañ lay miin mm-hmm. ngay gisante ak ñoom jëxëran jëxëran ah bu la booba loolu de moom wax dëgg yàlla <laughs> defaguma ko moo tax mënu ko <laughs> mosugumaa gis ko ko def li xam daal xam naa ne moom xam-xam waaw mbir mu ama am la loolu moom leer na ma nañ. Mhm. baatin loo ama am la. Mhm. waaw baatin yomb na léegi ci dëkk a ah jafewul de xam nga baatin dafa am ñaari baatin. Mhm. baatinu yàlla ak baatinu saay-saay. ndax man nga yor baatin boo xam ne tur yi rawaan lay doon tur yi rek. Eh, taggat nit ñi ñu lay liggéeyal. soo bëggee defar nit defar ko léegi léegi soo bëggee defal nit defal ko nit léegi léegi xam nga tey eh, sëriñ su bari mm-hmm. foofu loolu la ñu leeral gaay mm-hmm. di nga mën a yor yow tur looy sikar muy doxal sa mbir. Mm-hmm. mais ñaare nga xam luy doxal mbiru nit ñi mooy jafe. mbiru nit ñi xam naa li nga wax. xam nga toog ni fi ne mën nañu jóg rek léegi léegi ma jóg jox la benn secret ci turu rawaan ne la dama wut deru kéwél nga wut ko wut alooy përëm. soo ko tàmbalee sikar léegi mbooloo la dikkal te doonoo doonoo doomi sëriñ doonoo dara. affaire yi nekkul ci ay doomi sëriñ ak doomi kilifa de. xam-xam la nee naa la fii nga toog boo ñemewoon Mhm. léegi man sama jëm nga ëpp ma mbooloo bu fekkee ñeme nga la sa mujj nag la doon xam ndax dana rafet dana rafet dana rafetam déet man mbooloo moom doy na man mbooloo xaalis ak lépp ndax yooyu lépp lay indi xaalis lew moom bëgg naa ma xaalis bu lew moom du ma ko rejeté ah, xam nga turu rawaan mhm. da nga leen di defal rek ñu lay defal mhm. jinne it noonu ko saalik da ngay def rek ñu lay defal d'accord doon dama bëgg boo gisee may wax ci jinne waaw ah. sëriñ si dafa am côté boo xam il fallait que nit ñi régler ko mu jeex benn yoon gis nga yaa ngi koy wax ci jinne indiwaat ko ci baatin ak yu mel noonu. sëriñ si dañuy perte temps bu baax ci Sénégal ay gañe wala dañ koy gañe dañuy perte baax temps bu baax ci Balla Gaye daan wala dañ koy daan wala Modou Lo daan wala nangam. boobu bu weesoo tam dañuy per temps sama jinne yi. comme naan yooyu noonu. te man gis nga ba léegi mooy li nga wax bokkut ak faj soxlay doomu aadama. man nee naa leen sëriñ buy laalee asamaan seeg suuf si soxaluma. ki am jàngoro mu wér ki am soxla mu faju man loolu laay toppee sëriñ. damay ñaan yàlla ñu dëkk gisante. bu dee sëriñ nag état jóg ci yooyu yëpp état mënu ci dara gis nga sëriñ mooy daaneel boppam moo yëkkati boppam. tigi man am na sëriñ suma doon invité ay at ci ginnaaw. tigi gisatuma leen. tigi xam naa ne nan meloon ba ma leen invité ci wàllum koom-koom ak yëpp melatuñ ko. tigi tigi léegi li leen ko teg. xëy na ci seen liggéey la. tigi fii nag man mi def émission bi nag ba léegi maa ngi continuer di waxee ni ma doon waxee. tigi tigi kon sans sans euh, d'accorduma ci. li wolof naan tëgg semeñ nax benn neex benn yoon naqari benn yoon nit bu dee da nga yor métier boo xam da nga ñaan yàlla sa njaboot aw la ci di nga ko ñàkk di nga ko rafetal di nga ko ormal di nga ko tegginal ba foo nekk man ci man a siggi ba ñu doon sëriñum mille 2024 sëñ Modou Kara Sylla boobu nga xam ne moo ma yar mm-hmm. jox naa la nga déggante moom téléphone mm-hmm. déggante mm-hmm. bi may tàmbali ñaan man nag mosuma def benn métier mosuma jàng benn métier bu ñaan rek laa xam. Mhm. bi may nekk ci moom ku nekkoon ci nguuru Ablaye Wade ku ma ci xamul amul ci àdduna. Mhm. mais bi mu bi mu ma yeewee xamal ma ne man xamal ko ne kat maa ngi ci di ñaan. Mhm. daf ma wax ne ma fu ma la dégg ngay def ay caaxaan wala ay tappale. du ma la woo téléphone. dama la fay fekk. gis nga bu ñëpp amoon du baax de. Ah, te kilifa boo boo ko ko wekk. boobaak léegi nit mosu koo woo mhm. waxuma la jàmbur bu may ñaanal waaye sama mbokk sax mosu koo woo ne ko sëñ Mourou def na lii wala def na laa mhm. ndax du moom rek laay sóoraale mhm. bis dina ñëw bis dina ñëw ma jógee Sénégal génn àdduna internet bi daf fiy des yàlla na yeex te bu boobaa sama doom daf fiy nekk te bari nañu bari ñu toroxal seen njaboot te yëguñu ko te man bëgguma bokk ci ñuy toroxal seen njaboot te yëguma ko waaw ah, xam-xam bi moom gëstu ko ba ba am ko xam naa ko bu baax a baax baax a baax maa ngi ciy def li ma war a def lépp. léegi xam nee naa la fi mu toog nii maa ngi ay jàngoro yoo xam ne. Hmm. aajo jàmm aajo nit ñi ñoo ma ko teg. nee naa liggéey toog bu métti bi da lay liggéey liggéey liggéey jinne hmm. mu may lor moo ma gënal sax lekk alali jàmbur aajo ma fa ñëwut. liggéey loo xam ne day am ci man conséquence après te tamay tedd. Hmm. moo ma gënal lekk alali jàmbur ba pare ñu may waxtaane loolu laay bañ. waaw macha allah comme daal moom dina sonn ci liggéeyam gi leen wax nag sëriñ bu la téeméeri sëriñ trian ki nga jëflanteegul loo ko wax tooñ ko est-ce que comprendre nga xam ne coupe du monde yi ku football fatt nag ba nga naan coupe du monde bi bari na 32 match xuma nangam yu mel noonu lu mu bari bari bari wax dëgg yàlla loo wax Mauritanie tooñ ko Mauritanie sonal la ci coupe du monde seetaanu ko match Mauritanie bu naan coupe du monde leemu yéex naa jeex comprendre kon sëriñ booy soog a jëflanteel loo ko wax tooñ ko fii nga jaar daal àndal ak sa xel te jàpp ne danga ngaa bëgg da ngay wut lu baax rek te kuy wut nag euh, ku xamoon fan la da nga fay jubali man ci boppam nee naa leen sëriñ bu may invité bu ne ni fa nit di jógee di bég nan la fa nit di jógee di jàmbat kon ku xamoon fan la da nga fay jubali na ni am rafet njort ci si sëriñ si tamit ñuy wax lun man loolu mooy mbir bi léegi nag bi nga xam ne que moom bii moom da nga ne sa domaine la kon te wóolu ci boo jël exemple sax moom nga jël ci boobu laa ñëw muy wàllum nopp ku góor kon daal góor bu bëgg a takk benn jigéen topp ci at paa bañ kii naan lawbe la kii naan géwal la kii naan tëgg la xeet yooyu da nga koy lijjanti mu jeex. waaw nee naa la man xam-xam amul dara loo xam ne luy bees ci man la. Hmm. ah nopp bi doon sa spécialiste laa bëgg ñu. bu bari. nopp téléphone baa ngi naa ci ay façon yu bëree bëri yu bokkul. waaw nee naa koo xam ne dama la koy liggéeyal. waaw loolu yow jot nga ci ay résultats yu bari. wax ak nit tay tay tay hmm. mu xëy na daal may wone ma. mu loolu li ma ciy def ci résultat ci réew mi ak bitim réew du jeex. nee naa la bu dee tey da nga am nit tey mbaam dañ koy def loo liggéeyloo. mbaam rek. waaw mu dëgër bopp nag. ah mbaam dafa dëgër bopp. waaye waaye de force dana dana dana hmm. fi ne ndox mun wëggee mbaam des yi amee am na safar boo xam bu dee waa Europe nag ñaari ndox. du yóbba dem. am na ñoo ñoo ñoo yenn saa yi CPI xarit mën ko indil. Hmm. mais képp koo xam fi ne da nga am koo xam ne da nga ko bëgg a not. defal mu def bàyyil mu bàyyi. ndox boobu buñ ko amee bu ma la joxee li ma a jox genn guddi laa la may mm. su ma soo ne ma sangoo pare bu ma jëlee sama course sikar li may sikar bala nga boo xëyee yaa may wax ne ma sama aajo fajal non ko jaarale ci suuf kay ndoxum kese du def daf ko ci butéel mel ne ndoxum naan la mu jaar ci ndox bu ndaw lay nekk rek butéel lay doon rek ah buñ mbaam ah, ndox boo xam dañ ci ah. ko ndox bi même yow yaa ko war a wut a wut am xandina dama ci dama koy am a jeexal naa ko ah jeexal ko mais balaa émission bi après émission bi dina fekk nga amaat ko. wutal nañ ma ko Touba léegi dinañ ma ko yóbbante kon ko kon. ngeen bàyyi ko xel ni émission bi dawee nii ci direct bi. boo paree ndox mi agsi na. ndox ngi gis gi bi ñëw ci armel gis nga ko bi ñuy daggee ci xantu ngi gis bu ne ci armel bu nekk ci armel naa wan naa la bu ma koy wut. nga ma vidéo waaw waaw. boobu tamit ci nopp bi la jëm. ci hmm. boobu joni joni la. joni def léegi léegi rek gis léegi. Hmm. am na ñoo xam ne que ba léegi nopp ba léegi dañuy jafe ci ñoom Euh, soit am na ci ñoo xam ne que seen jëkkër daf leen wan ginnaaw wuyatu leen talatu leen am na ci ñoo xam fan yi rek am na ko may woo koo xam na que benn footballkat la moom dafa mi ci réewu nasaraan yi rek dafa amoon tubaab bu am solo sax bu ko amal solo euh, ba mu war a takk te tubaab bi xëy na rek kii ko quoi wan ko ginnaaw maanaam nee na a ko nu mu demee mu ne moom mooy woote rek xam nga ngay woote rek moom neexul ñu lay wuyu mu ne nag day bëgg xam boppam ko waa message moom ñaar koy def seex waaw xam nga xam-xam nit ñi duñ ko gaaw a weddi. Mhm. mukk ci àdduna xam nga lu tax. waaw ñun créé wuñ ko fi. Mhm. ñun gone yi dañ ko. mais li ma bëgg la noob ñaata fan ngay jàpp ci bis bu ci joni joni. fi man noob bu ma amee maanaam xànc ngi ba fi nekkee. guddi gi bu ma ko fasee. xaaj guddi laa koy fas. su ma ko fasee. Mhm. soo xëyee ne ma am nga résultat loolu ñaata yoon seex. la nit woo ñu def ci loolu. jeex na kon xaaj nga gis. am na mais da ci am lu bari xam nga boo nee su ma ko amee. dama koy dama koy am mais da du taxaw moo tax. da du taxaw ndax man li may liggéey fii sax Sénégal moo ëpp li may liggéey Europe. dafa yaatu xam naa li nga wax. loolu li ma ci am du taxaw. Hmm. bu ma ko amee daanaka balaa mat semaine day daal di jeex. xam nit ñëpp fi ne loolu loolu leen sonal léegi loolu leen sonal. Hmm. kon daal ku yor jëkkëram jëkkër ji mel lu koy wan ginnaaw ak koo xam da ngaa bëgg waa ji takk waa ji tëw a takk ak koo xam da ngaa bëgg a takk ndaw si ndaw si baardewul ci boobu nag laa gën a bañ nag moom di topp ci ku la bëggul Youssou Ndour mi ngi koy wax ba beneen bi yéen ñaar ngeen bëggante mbokk yi ne du ci dal ndax lii xeet googu daal moom nga ne nopp bu ñëwee nga yeew bam mu ne ngodd lu wax mu ne waaw kenn du ci mën dara hmm? <laughs> mais noobu mbooloo nag ka nga xam ne que tey par exemple dafa bëgg a takk kenn ki mu bëgg a takk soit wala ku jigéen bëgg a sëyi fenn bëgg mu sëyi ko mbokk yi ñu bari ànduñu léegi da ngay am tur yëpp pour. Ah, dugal leen foofu wala bu amee tur yëpp am na fu ñu koy dugal bu ñu paree sànni ko géej. xam nga nee naa la man damay bind joxe. waaw mais avant bind mi. Ah. am na lu may jëfandikoo loo xam ne. Mm-hmm. xam nga yow avant ñu avant ñu gisante ma ak a bii. Mm-hmm. ay a ay nit dañu ma daan dikkal. léegi léegi léegi léegi léegi nii nii nii. parce mm-hmm. que Serigne Touba Cheikhul Khadim bu la neexee bala ngaa jóg fii. am na ku jógee ñaar ñu jóge Pikine ñi ngi ñëw. Cambérène lañ ma fekk xamante gu xamante gu ñu ngi yow sama seen bi de. waaw sa sa seen def na ay at. ñi ngi fi ñëw léegi maam nee na ma wut naa visa ay at. ay at keroog bi ñu dafa dem rek ñu may ko. mi ngi ñëwaat nii nii nii war a ñaanaat. barke rasul maa ñëwaat ci visa ah, dama lay dama lay leeral ci côté boobu maanaam damay bindi joxe. damay bindi joxe mais liy faj aajo yi nit ñi man sama jëm. Mm-hmm. xaw ma ko. Mm-hmm. maa ngi jëfandikoo nag lool baatin la. baatin baatin boobu noonu. Mm-hmm. nee naa la fu sama bàqin bàqin dal. ñu yëg ne dal na fa. waxaat ko wala fi lool bàqin bàqin bàqin. baqin baqin baqin allahuma inni asaluka allahuma inni asaluka law baadahu jalilu daimu haadi hmm. wahaabu sakki yu xatimu tahiru hmm. abbaha u hmm. bakkaha u jallaha u damha u hanha u washa u saha u afa u taddaha u antu saxira li qudama qudama hasil asma antaqdi xagiti kulliha nee naa la mbind meeg yëpp comme nit ñi dañoo bëgg lu dal dañoo bëgg lu dal lu dal seen xel rek Hmm. dana leen jox mbind mais man man sëñ Modou hmm. man dama ñaanal nit du ma yor mbind du ma yor dara daal kurus gi wóolu nga ko ak fa ngay tiim kurus gi mooy faj sama aajo mooy faj aajo nit ñi hmm. jeex kon daal dégg ko euh, ku ku ku ku yoo xam ne que nag ki mi bëgg a nopp tubaab la nag tubaab à part à part la wala tubaab karaw tubaab bi am naa ci lu bari mi ngi ci kaw karaw tubaab ak kayitu journal karaw nit ku ñuul donc aliwoy xànjar ci lañ koy kayitu journal mu informé mooy ah, informé nit mooy informé nit journal boobu ak karaw nit ku ñuul boobu ak karaw tubaab boobu dañ koy lakk ba mu nekk dóom. boolewu ci karaw métis métis tamit am na doole ci àdduna ah, xam nga Brésil man la tey ji bu ma ko amee tey. Mm-hmm. fa bu xital la si kafara dàkkoosin. fa mu la si kafara dàkkoosin. ci suur du baqara ah, dàkkoosin moom lu ci ko ci la ca. Mm-hmm. xam nga loolu mooy liñ dagg. liñ dagg. tur woowu sax dañ ko dagg dañoo dagg rek indi ko mais la ca ànd. Mm-hmm. am na leneen lu muy lu cay ànd loo xam ne indiwul ko. Hmm. boobu daal ngay bu dee fa buxita da ngay def fa buxita la si kafara dàkkoosin. dàkkoosin boo daggee xaatim bi. Hmm. soo ko bindee ci alawee xàngeer gi teg ko ci sawara def seen ci digg bi ci ximaar ji def ca karaw tubaab beeg. rahin Daniel House. <laughs> ah xam nga saaru tubaab yi yoo xam tur yi dañuy dañuy naqari prononcé boo ko bindee ci àllo bi day jàll. man ku ma ci jàpp nga fa nga wàcc. man. nee naa la Cheikh. Ah. yàlla dafa ma doon ma soppala tu bëgg la rek. Mm-hmm. mais bi ñuy xamante man yow. Mm-hmm. bari na lu bari loo xam si doon nala la ko wante boobu egg si mu fii. xam nga nee naa la xam-xam. Mm-hmm. yaa yàq baa nga defar ko. nee naa la man am naa xam-xam boo xam ne man xam naa am naa ko. Ah. benn yàq baa ma defar ko. te awaguma ci awaguma ci yoonu yàqu ko. yàlla bul yàq. Hmm. sëñ Modou Gueye Diwane Sylla numéro yaa ngi noonu ci écran bu baax a baax kon nee na daal képp ku bëgg wàllum nopp rek boo ñëwee moom mooy spécialiste am nopp nag mooy euh, jigéen bi nga xam ne que da ngaa nekk ak benn waay euh, waa ji tëw a takk nga bëgg mu takk mu defal loo xam day waaj a takk waa ji tamit waa ji yor benn jigéen tamit bëgg a takk jigéen gi daan xaaral xaaral xaaral moom mu fexe mu takk wala yéen ñaar ngeen bëgg sëy mbokk yi ne du ci dal. ndax euh, euh, docteur Wadd barke Rasulaay moom bu wax ndànk lay wax Petit Sow ndànk lay wax Baye Mass ndànk lay wax ñoom ah ki wax ci saal mu noppi sa Sana Diaw acca noppi leen Modou Diallo noppi leen ñu ngi def suñu émission bu baax a baax a baax Modou cak cak euh, léegi nopp léegi nopp mu doon loo xam ne que dafa xaw a jafe te bu ko nit ki lijjantee rek lu bari mën na réglé wu ci biir kër yi mooy ñi nga xam ne que dañ leen yàqal ko ci ñëw kon am na boo xam ne que ci joni joni la am na boo xam ne boo fanaanee yow la. xam nga noob moom jafe na ci. Mm-hmm. ki ko yàlla xamalul. ki ko yàlla xamalul. yow mën na ci ko yàlla xamal. Mm-hmm. kin fi mujj waxtaanee suñu émission bi jàll. Mm-hmm. bari na nag ñu fi jaar ñoo xam si nii. parce naa lu bari xam nga ko ci ndax ba ma koy liggéeyal sax dama caméra Aliou Xanjar ji yónnee la ma indil de. tubaab la lay indil. ne ma bu ma rombee sax ma nuyu. moom moom moo wax. du man nag du moom yàlla la. kon dégg ngeen ko ku ci amul tubaab rek mu nar laa fat rek nee na boo ñëwee dina am lu kawe njort te moom nag dina la xaar ma jox la numéro Cheikh Talif nga témoin man nag maa ngi déglu kon ku ci bëgg rek ma yëg yàlla bu bu ma yëg baneen soo meree it bu ko neexee na yëg. waaw boo bu nee na bu ma meree tamit na nga yëg te yàlla bul mer man li ma bëgg mooy ñëpp di kii daal wóolu naa ko daal ndax wax dëgg yàlla nit ki li ma leen di wax rek bëgg du ñëpp ko gaaw a yëg mais moom ñëpp ko yëg yàlla bu mer am rek bu mer amul rek ma dinaa comprendre li des mbégte la quoi sëñ Mour Gueye Diwane Sylla léegi nopp ak noot nag lan mooy différence bi noot noot da nga koy def. noot am noot moom ak noot. waaw ak tasxiir. tasxiir ñett la yoo xam ne. Mhm. mu ngi mel ni nga ne pël séeréer. pël séeréer ne tukkuloor tukkuloor. Mhm. ay tànk la ñuy yor suuf bopp bu nekk ci kaw ñaari loxo. Mhm. soriwul lépp benn la rek. benn la daanaka. benn la tasxiir nag mooy nit ki dina la bëgg. ragal la teg ci. ragal la. Mm-hmm. nootit mooy koo xam ne da ngay ne ci kawam rek. Mm-hmm. defal mu def bàyyil mu bàyyi benn la daal yëpp mënoo leen a xaajale. xam naa léegi waaw kon daal no euh, kon noot moom mën nañ dégg ne footballeur bu bëgg a noot entraîneur am. Mm-hmm. nga nootal ko waa ji wala départ na Tottenham Conte départ na des fois waaw ma nga fa ba léegi Pape Matar Sarr lu wax Conte rek Conte nangu muy dem titulaire. waaw buy taal ci kanam sax day football kenn du ci mën dara. loolu mooy mooy mën nga ko ci footballeur ak entraîneur daal mu neex entraîneur. a loolu man naa ko xam nga météo naa la fi jamono ne la. Hmm. am na deuxième goal bu ñu kon mën naa ko. waxoon nga ma ko waxoon naa ko def ñaaw sutura nañ goal ba rek waaw sutura nañ goal ba waaw parce que koy ñaanal sax premier goal la war a doon bu mu doon tamit waaw yaa ngi dégg sutura waaw xam nga jamono bi moo toll foo xam ne hmm. surtout suñu réew mi hmm. réew la moo xam ne réew mu doy waar la mm-hmm. même fi ne nga xam ne sax dañ leen doon yaakaar sax mm-hmm. xam nga tey sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne day naxe tey mm-hmm. moo tax sëriñ su bari war ma maytu naxe ndax li ñuy yàq dafa bari mais seen bopp la feebar sax war a mën a dem faju du wóolu fam jëm fam jëm war na faa war a mën a wér mais du fa ba yàlla jaara ci ñàkk négligé googu mu jël ci bakkanam Mm-hmm. nañ maytu naxe ndax mm-hmm. bari na kuy dem ci sëriñ sax wala ñu wax la kilifa sax ne la mën naa faj sax de nga feebar mm-hmm. mais doo am wóolu cent pour cent pour doo am wóolu ba tayel boo tayel la tayel googu mën na dem indil sa feebar foo xam ne mën na la indil jafe-jafe bari a dégg daal entraîneur bu ku bëgg entraîneur bi neex ko ngay dem titulaire boo mën a doon nee naa naa la daal ba nga ñëwee fii la ñii nga àndal bu la ci neexee ko la ci neex Mm. bu ñu yéegee ci kaw léegi. waaw bëgg ma defal la ci moom. fii ñu toog lu doon bañ. Mm-hmm. ñi nga àndal la la wax waxuma la ay mm-hmm. suba de. waaw mu doon bañ mu def ko léegi léegi léegi léegi. loolu léegi man kay léegi li ma war a defal ci ñii xam ñii ku leen agressé li nga fekk ñoom du bari. waaw presse ba ci Real de Madrid. Ah. fexel rek kon moom muy jël xéwal yi di ma xëpp rek. waaw ah, baax na Real la ah. xam nga ñoo demal Real sax nee naa la xaalis. waaw sangu baax na lool. waaye xaalis dëgg dëgg dëgg dëgg sang du ko maye. sang du ko maye lu koy maye. waaw xam nga am na yoo xam ne duñ ko wax sax ci internet. xam naa man am naa xeetu xam-xam yoo xam ne bu ma lay liggéeyal. Mm-hmm. mën naa la bañ a jox nga sangu. Mm-hmm. mën naa la bañ a jox nga takk. ah boobu de benn dàq ko. bañ a takk a sangu bu yàlla dogalee nga ba mën ko jënd. Mm-hmm. kéwél boobu moom ngay rey. après dina am ci daru kéwél boobu noonu. kéwél. dara bu fekkee nag mbirum rawaan la mu ñoo xam ne bëgguñu yooyu bëgguñu mbiru jëm ci mbiru rawaane ki jinne mhm. kéwél mooy lan bëy bëyu lan bëyu mag rek bëyu àll bëyu jinne yi dëgg sax moo ci gën a gaaw moo a gaaw ko nee ku bëgg am alal ju bari ta doo nekk di takk di naan di sangoog yooyu kéwél la lewut kéwél moom yaa ko yaa ko lijjanti waaw léegi nee naa sëñ si tamit loolu tamit dañuy léeg-léeg jox nit ay càngat fi ma toog nii yëpp nga koy wut moo gën fi ma toog nii man sama ndigg dara newu ci mhm. sëriñ la de sama digg dara néew ci mooy téere bi may takk ci sama dënn. waaw boo demee ci kaw amul benn téere bu may takk. Hmm. bilee na nga ba saf kéw nga def man ñàkk ma dara ci àdduna. Hmm. benn sëriñ ñëwee ma ku dugg samay tànk da nga xam ne dugg nga ci tànk yow war a dugg. yow kër sama bilee na ba saf saf. sëñ Modou Gueye Diwane Sylla kon dégg ngeen ko ku bëgg a noot entraîneur bi ba mu ba mu def li nga bëgg da nga ciy dem bu baax a baax a baax seet nag moo def ak moom seet. waaw seet heure boo xamee ne ñëw nga. Hmm. loolu mooy première buntu sëriñ bi nga xam ne sëriñ war na ko mën. war na ko mën. boo ñëwee bu defee ramle bi rek. Mm-hmm. génne gobat. waaw góotal. góotal laxiyaani. laxiyaani samra. samra ferek. ferek amara. amara sëgal. sëgal. Euh, euh, fukki doom ak juróom-benn yi daal wax bu bar ma dégg ni nga ko waxee nii mm-hmm. Mm-hmm. waaw mu bar. gobat. daamar. rëkkiisa. sëgal. laxiyaani. bëddna seefar daamar amara. ba fukki doom yeeg juróom-benn yëpp dajaloo. waaw fukki doom yeeg juróom hmm. am na ci ñaari ñoo xam ne soo ko gisee mooy firi bii mooy firi jigéen ju mag bii mooy firi góor gu mag. Hmm. bii mooy firi gobat. Hmm. mooy firi xale bu góor. góotal mooy firi xale bu jigéen. laxiyaani mooy firi kilifa gu góor. samra mooy firi jigéen ju mag. léegi nag doom bu jege ak doom bu ko uuf ak doom bu ne ci kawam. da lay xibaar normalement moom ñetti doom ñeenti doom yu njëkk yi bu génnee rek. Mm. bala ngay indi doom yi ne ci wet rek. Mm. da ngay war a xam. li nga da ngay war a mën a jombal nit ki ci baat bu njëkk bi nga koy njëkk a wax rek. dañuy mm. saa yi ma seetlu nit ne ko nangam rek mu ne ma yow lan la. mu tiit xanaa dañ la mm-hmm. da ngay tiim ay kayit téere yoo xam ne de kii yor na ko kii yor na ko kii yor na ko day dégg. <laughs> dama dagg fii oto dem ba Gàmbi déggante ci pël. mag moo xam ne am na parce que juróom-ñaar léegi mu ma jege a at mhm. ma def fa ay weer di ko fa jàng. Mhm. te fekk am na loo ko rootoon ci sëñ Kara. lu ma ci wax ni du dañ non ma neexee sax du ma seet ndax nee la tur may jëfandikoo heure su ci bëggee xam nit rek lu ma bëgg a xam mën naa ko xam. loo a xaw ma moom dafa dafa dafa ci benn sëriñ. xaw ma dafa nit ki daal dafa war a doon polyvalent waaw ci sëriñ. sëñ Modou Gueye Diwane Sylla dégg ngeen ko bu baax a baax a baax a baax kon nee seet moom. Euh, kum ci dugal rek dina ci am ndam bu baax a baax a baax léegi beneen mbir nag mooy Effenberg yi ci dëkk bi sëyite leen wala loolu da nga ko dugal ci noob rek ñi nga xam ne que maanaam amuñu ku ni bëgganteel ni ba war ko noob mu takk mais danoo xee xeetu ñàkk bay la ndax xamoo ne bari na sax pour sëriñ si giñ rab waaw rab nekku fa rab bari na lañ koy dafa dafa weex dun rek ñu koy giñ mais doole dooleem bari na dooleem bari na bari goo xam ne fu nekk nit ñi yëg hmm. bari na nit naan diw rab a ko jàpp diw nangam hmm. rab dooleem bari na bari goo xam si nii fu mu nekk rek dana def manifestation ba nit ko. Hmm. kon li koy ji lépp du moom. bari nañu koy jiñ bari na. waaw léegi moom laa kii dem nga France. waaw ñaata tubaab bi jigéen a fa nekk mënuñoo am jëkkër. bëri na mënuñoo sëy. bëri na da leen gis ñuy faj ay rab wala dara. bëri na ñi rab daal dëgg dëgg dëgg boo ko gisee ci ñoom xam bari na ñu bari jigéen ñu bari ñuy dem fii ñu ne sëriñ bi sama rab rab nangam nangam nangam rab newu ci ñoom. Hmm. yàlla jotalagul seen mbir rek. Hmm. jeex na léegi kii laay maa ngi doon tudd tuddati avant rab bi moom day dugg ci beneen bu bokkut ak bi nga dugg ci jigéen bi nga xam ne que dafa bëgg borom kër mm-hmm. mu tëg ko pour soit sangat lay doon loo xam ne day jékki-jékki rek dajeeg jëkkëram quoi waaw bu fekkee ne da am na loo xam ne dañ koy bind nga jambe ko saafara def ko fuddan def ko fuddan fuddanoo ko mm-hmm. bu ànd ak yàlla balaa fuddan see mm-hmm. ngaa gis ko asalaamaaleykum asalaamaaleykum kenn nga gis bokkut nag koo xam ne mais mbaal baal di wax nag doo ñëw Tektal TV ñu bari ñu koy seetaan ñu Sénégal Mm. foo mën a nekk rek foo a nekk ci àdduna rek mën a ci àdduna ndax foo mën a nekk rek ci àdduna liñ lay liggéeyal mën nga see jot mën nga see jot mën nit sax sans da jox muy sangu wala muy takk mm. waaw nee naa la bari na nit ñooñu nit ñooñu nag loolu da loolu doyu leen doyu leen il faut nga jox leen ñuy wala ñuy diw wala ñu takk rek ñoom mm. doo ko mën a gëm ne ñu ngi jëfandikoo dara sëñ Modou Gueye diwaan si la léegi kuy sëy ñaar ñuy sëy mu diire pression bi tege seen kaw doom tëleen soit muy ko góor ki wala ko jigéen ki ñoom daal yéex am doom daal bay jot ay information mbedd yi di lu leen neexul ñu bëgg ci mucc. Ah. wala boobu man nga ko. waaw ah, loolu mbir la moo xam ne boo ñëwee. Hmm. dañ koy xool. waaw suñ ko xoolee ba xam li ko waral. Hmm. ñaanal la. Hmm. mais bu sañoon it ba ñu ci bala ñu koy jéem a laalit. yow moom daal nga dem hôpital. waaw am na yoo xam seen saa yi day ne ci ku góor ci. wala mu ne ci ku jigéen ci. mu dem hôpital ko la. ban xam xam ba xam lan la ba noppi. waaye ah, yow moo amoo jumtukaay lan la moom. non na ma xam lu lu ma a nekk ci doomu aadama mën naa ko am suñu seex. Mm-hmm. baax na. nee naa la mais mais yàgg nga am ndam daal. sama tomb yooyu daal non loolu loolu moom dama cay loolu du dara na sax ku ñëw naar ba ñëwee boo ma fekkee ma am jot du ma la ci laaj dara ma koy may. Mm-hmm. loolu du dara. jox na kon ñu sayta doom te leen dégg ngeen li wax léegi nag xeetu nit ki am doom ba pare bëgg a doomam doomam doon koo xam ne crack lay doon jànkat du doon bandi du doon tuxkat du doon naankat du doon du doon kuy ku ko dugal ci problème quoi léegi tamit mu doon doom ju baax ba pare doon koo xam ne que tamit wàllum concours day dem rek bag ak ma ak yëpp da koy lijjanti mu gaaw. a ñaan. waaw am na ci loolu solo. Hmm. waaye li gën a am solo ci ci doom. Hmm. mooy fexe ba def ci moom éducation. xam nga tey suñu kër yi bu ubbee woon ñu ñett ñi ñëpp. Hmm. ñun ñeent ñi sama kër sama kër suñu kër yi nga yar sa doom. ñi ñëpp yar seen doom te yoruma sama njaboot seenum njaboot yaakaar xamal na rëccagul. Hmm. doom nag li koy li nga koy njëkk a yare mooy da ngay fexe ba jël ci responsable. Hmm. bari nañu ñu yorut seen doom dañoo jël ci seen da hmm. nga dégg li may wax bu baax a a baax. bari nañu bari ñu am ak nit doom seen yoon nekkatu ci. bu ko defee bu pare bu loolu jàllee nag nga doog nga doog nga doog a wut nag ay ñaan. ñaan moom mën na lu ne. mu lu ñaan mënut ci àdduna. léegi bu taxawee ba pare nag léegi di jàng nag bëgg a lijjanti ay ñoom bag ak BFM ak yooyu. waaw loolu heure boo ko bëggee boo ñëwee. Hmm. dana la at mu nekk ma def ci loo xam si nii ci ci kàttanu yàlla lu yéeme lay doon. Hmm. heure soo ko bëggee boo ñëwee carte mariage yi ñuy carte. carte yi waaw soo ko jëndee ñeenti chiffres rek laa ci soxla. paquet bi lay jënd rek indi lay indi. kon dégg ko élèves yi ah, ku jubbati concours rek ak kii yeeg yooyu nu mu tuddati bag yeeg yooyu BFM muy indi carte mariage. ñe lay indi bu ko indee. waaw ñeenti chiffre rek laaj soxla. Mhm. ñeenti chiffre rek laaj soxla. ah léegi day jàll ci force wala incha allah. ci kattanu yàlla day jàll incha allah. ci kattanu nga force moom. nee naa la man bu ma liggéey loo xam ne sax ndax lu neex yàlla naqar yàlla amut. Mhm. yow miy liggéey lu bon nag loo xam ne nii miin nañ ko fi ci réew mi ñaar boo koy def lu bon rek ngay def te. Mhm. yàlla dala ci wuy lool lool sax boo nee neex yàlla naqar yàlla sax yaa ngi jum ndax lu neexul yàlla rek du am. noonu foofu boo déggee may waxee foofu parfois sëriñ si. dañu jël benn engagement. comme am na sëriñ soo xam bu nekkee ci télé bi yàlla may na leen làmm yu set dañu jël engagement yu diis. mais bu nit ki xasee dugal xaalisam rek ñu commencé wàññi engagement yi nag. commencé nag faw nga gëm faw nga kii naa nga damay bëgg a xam nag tey par exemple euh, wàllum gëm ak ñàkk gëm. aayaayu sëriñ ba moo war a feeñ foofu parce que pétrole moom bu laa bokk naa am problème boo yëpp bokk naa ne am sëñ bi tamit moom nit ki bu ko gëmadee tamit jox ko xaalisam même bu lum gëmadi gëmadi sëñ bi na fexee résultat am rek wala. xam-xam daal danaa la jox benn secret. Hmm. ñëpp mënuñu koo amandoo. Hmm. ñu néew koy am. Hmm. lii moom na ko bàyyi xel. man nee naa la xam-xam bi ma yàlla jox. du sama farlu. du sama mën a ndimbalul yàlla la loo xam ne. yàlla ko dogal ci man. ndimbalu yàlla boo ànd sa farlu daal. ànd naa ak farlu nag ndax. ki ma yaakaaroon te doon ànd ak moom te gëm ko te ma yaakaar ko ba tey ba lut moom. Mm. jàpp na sax ma naan ko. Mm. jàpp ba pare ma naan ko ngir gëm-gëm. Mm. moo tax it nag lu may def ci lii rek damay mën a waat ci yàlla ne day sotti. barke fan lay dugg parce que am na li ñoo xam ne mënoon laa bindal Fatiha nga sangoo doo gis dara am ñoo xam bu bindee nga sangoo gis dara. barke lu ko joxe xam nga barke. tey misaal mi ma mën a jox du ma ne sax ndax loolu book ko waxee da ngay xalab Seydina Nuux nee nañ da ñu koy wax Nuux Nuux mooy koo xam ne day da doon jooy bay onk mm-hmm. ñu ne loolu bokk na ci doye daloon benn benn benn mala mm-hmm. tey bu magal Tuubaa pour ci man misaal mi ma la mën a jox ne barke am na mm-hmm. ñaata nag ak ñaata gileem la ñuy rey na de Tiwaawoon Kawlax faneen ak faneen bari na de waaw dëkk bii di bi yaa rey ay xar muy seex am na mais rarement nga gis ko bëy daal moo ëpp lu muy seex. waaw nag it lay seex. waaw mais ñoom xaj ak yooyu moom dañuy. waaw ñooñu fukki doom ak la ñuy jur. mais yàlla barkeelu ko. Hmm. ci ñun. pourtant boo génnoon fii boo ko gisee doo ko gaaw a gisee. Ah. a gisee te yaa ngi dégg noonu sax benn xar bu ñu mel. Hmm. <laughs> loolu mooy barke barke. Uh-huh. so gis nga nag nit booy sàkku dara kon na nekk ci loxo sax comme nit ki bu bindee loxo bi. am mën na nekk ci lépp gis nga maanaam bari na sëriñ yoo xam ne fi ne ñi ngeeg ay kayfiya yor naa tur bi yor naa tur rawaan bi yor naa tur jinne bi yor na tur yàlla bi lu ne nga ne yaa ngi ak moom. mais hmm. amul barke. amul barke. ne sa tegtal bii nga gis nii. Hmm. man de rafet naa ne jort ne am na barke. am na barke ndax mooy. Hmm. koo waxam ne la seex dafa jub. xam nga ne xam-xam première maanaam première pàcc bi njëkk ci xam-xam mooy jub. ndax su njëkkut mi mooy mujj hmm. képp koo gis mu njëkkee dëng te it am njëg lay ndax neex na xarit la xam nga dafa am loo xam ne si nii jur jur tamas ndax du wëy ah, xam nga am loo xam ne si nii mën naa wëy hmm. am loo xam ne mënta wëy gis nga njubadi hmm. ak koo mën a doon ci àdduna ak noo koy man mënta wëy waaw moo tax mën naa leen kum neex nga abonné kum neex bul abonné ñun daal njëriñ leen fas yéene yor di ko teg am na sëriñ soo xam ne que milliard bu ñu ko doon jox duñ toog teeg man que lan la am na dëgg gun fi war a imposer te tey bi bu leen jaawale ne ku ma indil rek léeg même ñi yor sama contact whatsapp du question lien bu ma la envoyé rek da nga force de damay jël lien bi envoyé ko contact yi nekk ci kaw léegi nag ñëwee sëriñ ba doy na la doy la loolu yow la mais du question ku ma la jox rek da nga war a jëflante ak moom ci force ngeen bàyyi xel loolu ñun sëriñ su bari wàcc nan ñun ñu yàlla def na ñu ngi gën a yéeg tegtal la ngi gën a dem mi ngi dem moo tax li may wax rek Euh, ku bëgg a defar ñëwul ñu ànd defar ku bëgg a yàq sori ma sëriñ mooy daaneel boppam ndax lan moo yëkkati boppam bu ko tegee ci yoon rek day dem kon bul nango doon sëriñu 2023 2024 nangu la doon sëriñ bu wéy ci sa métier te di ko teg ci yoon kon domaine bii moom ah duñ ko foowee duñ ko caaxaane loolu mooy teg tegtal rek yéene parce que nee naa leen client bu am résultat sëriñ bu am résultat ñoom ñaar boo leen boolee seen mbégte man maa leen di raw te bu ma ci duma ci sonn ci dara am nay gàmb yeeg yoo xam ne que léeg-léeg man maa jël seen bagage yóbbul leen ko léeg-léeg ma fay leen ceg-ceg te duñ ko yëg yëpp ngir dem ndax liggéey bi nag ñi ngi ci am lu ne ñi ngi ciy dem fu ne moo tax dañuy jaral lu ne kon di ñaan yàlla daje koy defar rek sëñ Modou Gueye Diwane Sylla léegi nag kii nan ngay def ak moom ki nekk bitim réew nag nga xam ne que kii tëna ko ak ki a dem surtout ki nga wax ne visa bi lijjantiku na ki bëgg dem ak ki fa nekk bëgg ki dem ak ñëw yomb. nee naa la man tàmbalee mu bitim réew xam nga bu dee da nga da nga ko nekk ci waa bitim réew rek. Hmm. damay gis nag ñu bari daanaka bu ñuy wax ñoom seen wax ci waa bitim réew lañu ko jëmale. Hmm. nee la réew mi ndaw la fi nekk. waaw te bëgg dem ci gaal yeeg fu nekk ba faa dugg. waaw bàyyi ko giñal naa la ci yàlla. Hmm. mi nga xam ne moom la yaakaar. te amul benn buur bu dul moom. heure boo xamee ne yaa ngi sa passeport. dem lijjanti say matériel yëpp war a Mhm. soo ma indilee sa passeport fii ma téye ko juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan danaa ci def loo xam ne bu ànd ak dogalu yàlla mhm. yaa xam waxuma nag ay France Amérique fu la neex dama wut ay Canada fu la neex Belgique ak Mauritanie bu neexee yàlla ci yàlla fépp suñu ubbee sa passeport dana na la may incha allah ci kattanu yàlla yàlla mhm. mu des tamit ñu may la bu pare ak dem ci jàmm parce que am na ñoo xam ne leen may ñu gubbee te leen am na ñoo xam ne mën nañ am béeg yëpp mais dañu mel lu. man de fii ma toll nii ñëw aéroport yi grève ak lu def. nii bépp ndaw boo xam ne may nañ la béyee. waaw te nga xam ne liggéey yi la ñor. Mm-hmm. ayu ma lay xam ayu ma lay ñàkk xam. Mm-hmm. yàlla xam ne heure boo ñëwee tabax ko te muy dëgg. Mm-hmm. bu nekk ma jox la ja moom nag day def te yàlla taxu daal. mais bu leen ko teg yenn coono yu diis yi nag jékki-jékki rek ñëw naan xam ne yi moom danoo. mën a jaar Sénégal moom dafa bari ay dóorkat. Ah, mais ku ku bëgg a dem ak ku fa nekk bëgg kay tamit képp koo xam ne da nga fa nekk bëgg kayit loolu am am nañ ci ay kii bu baax ñu na na euh, euh, sëriñ la boo xam ne que moom au lieu que ñu ko jot mais moom moo lay woo di xool foo tey lan nga yëg lan nga kii ak yu mel noonu kooku ay code la daal mi ngi ci bitim réew xam nga li may bañ mhm. mooy yow yàlla dafa dogal dama la jox cër it mhm. nit ku ne yàlla dana la bind nga am koo xam ne da koy rus mhm. te yàlla xam ne fi ne li ma mën a gën a seene mooy tey yow nga woo ma rek ne ma diw nee na woo na la jotu la sax waxuma la diw nee na da nga da laa mënta jot wala da nga ko boole mm-hmm. mais diw nee na woo na ma ko defee mm-hmm. daf may déranger xam nga lu tax mm-hmm. mooy bëgguma dara loolu naqari luy jóge ci man ndax te xam naa ne bëggoo gàcca te man loolu laay jàppe nit man waxoon ne la man moom mu sama bopp dama am ay mag am ay rak am ay jarbaat am soxna yàlla boole ma ak moom muy sama nawle Hmm. am ay mbokk yoo xam ne ëllëg buñ toogee ci internet bi gis ñu may daggale saaga hmm. wala ñu lay ñuy wax lu ñaaw ci man wala dara loo xam ne man maa ko def mu leer la ne lii def ndax bari na lu ñuy waxal nit nag ñu naan ñuy naatabli naan moo ko def ak defu ko hmm. am na ci loolu kenn ñi mu ko bañ man moom ma song bopp ndax yow mi sax am nga ci man wàlla sa gars yi am nañ ci man wàlla waaw dëgg gi ànd xam nga par exemple nit bu waxee ma ne ko wóolu naa ko li mu koy wóolu wóolu bu client bi jàmbatee nangam damay jël loolu envoyé ko pare wax ak ne ko nit ñi nag dañuy yàkkamti kenn ku ne parce que communication bu amee ci entre ñaar ñi rek problème yu bari dina deñ moo tax façon yu te moom day woote waat loolu bu nar a kii ma delloo la sa xaalis wala nangam ànd ak daal dëgg goo xam ne que man laa àndeek moom ba léegi nii léegi nag ay kayit comme ku ñëw kooku moom sant na bu baax a baax a baax ci ak gërëm ci taxawaay bi ci yu bëri <laughs> léegi ñëw nag ci beneen mbir ku fa nekk nag am na kayit ak am na lépp mais nag liggéey bu dox moo ko jaaxal. waaw liggéey bu dox. am na benn sangat boo xam ne ñu ngi koy booleeg euh, karaw tubaab. karaw tubaab. ak euh, siki. Mhm. ak lan ak euh, siki. siki ok parfum siki. parfum siki. ak xoromu géwél. xoromu géwél. xorom boo xam ne ci kër géwél lañ ko ñaan. xoromu géwél ah ok dem ci kër géwél yi rek ñaan xorom. moom boo bëggee bayre ak ubbeeku. vieux mbaay Lamine Samba ak yooyu waaw kon ñu dem seen kër. képp ku ma ko yónnee. Mm-hmm. di nga am ubbeeku. Mm-hmm. ak bayre surtout ci tubaab bi ndax. ci tubaab dañ cay dugal yahood. Mm-hmm. ak nasaara. te yooyu rek mooy tubaab bi. boo xam ne tubaab bi ci biir lépp loo xam si ni xeetu yahood la rek ak xeetu nasaara da ciy dugg. jeex na kon dégg daal kon ku bëgg liggéey bu dox rek nee na mu defal la ko baax ki xam ne ka tamit euh, mënul téye alal bu daje. lu mu yor maam bu tee lii balaa lee di ñëw lii dem mu teewaat lee nga xam ne que bëgg na dajale yàqu am na ñoo xam nag seen ñàkk dajale ñoom la ñooy doxaan dugg ci jigéen ñi di dem lu ne ñoom ñoo ñoo ko teg seen bopp am ñoo xam ne dañoo bëgg resto dañuy dem di wut ay bamas ni ko gars yi waxee noonu rafetal kii bi leeral waaw ay leeral ak yooyu Fadel moom du def yooyu Samba du def yooyu ah euh, Birago du def yooyu Mbappé moom Kylian Mbappé yooyu lay def xeetu yooyu tamit boo xawee bëgg àdduna tuuti mën na la tardeel mais koo xam ne que day dajale ba ñu yàq mel ni Fadam rek Moustapha Diop waaw du lekk lu neex du jënd lu seer du kii te day liggéey bu laajee mu dox yoon wi sax mu dox ko pour sakkanal quoi Fadam ca Sandaga mooy jaay télé yi nag ngeen bàyyi ko xel. Hmm. waaw nit day waaw ku bëgg alal bu daje. alal bu daje am na garab bu ñuy wax digóor. dugóor dugóor. Ah. waaw digóor pël di ko wax dukk mi. dukk mi moom it noonu la mënee fas. ñu hmm. tey boo amee moom fi ne bu noor jotee sax bu demee ba nawet bi noor bi xob yëpp naaw moom xob ay xobam ci taatu lay nekk. dafay des dem mukk ci àdduna. day des ok boobu am na ci loolu bu ñu la ko liggéeyalee. waaw nga takk ko. Hmm. loo yor dina des ci say loxo. dina des am nañ ci nag yoon yu bare bare bare yu wuute. Hmm. waaw ngeen bàyyi xel tamit nay tamit taxul ñuy wax de. maanaam munoo dajale maanaam dajale woo dara tàlli ba mu ëpp ba kii am na jikko yoo xam ne que ñoom sëñ Fallou ñoo ko doon dëndee mais dëkk léegi bi ñuy del dajale di sóoraale lu ne day kii bul jël sa kii rek basaar da ko mu jeex noonu nga toog noonu quoi. Hmm. jamono njëkk ji ak nit njëkk ñi ak nit yu léegi wuute gi dafa bari del sakkanal di économiser di def farata tey moytu sunna yi bu baax a baax a baax léegi kuy liggéey ci banque léeg ay jafe-jafe ko fa fekk euh, ba am naa ku ma xam sax kuy ci benn banque temps yi am na xeetu jafe-jafe yu am ba dàq nañ ko moom ak ñetti nit xeet yu mel waaw bari naa ci xarit bari nga ci xarit yàggul dara ndeysaan tamit nit ki mën na ñëw rek nuyu la signé loolu loo xam nga signé pare soo ko xam ne def nga erreur ba yooyu di leen kii. Ah, bi ñu màggal Touba rek dafa jub mos na dem ci banque. ñu jox ko lépp mu dem delloowaat ko moom moom xam naa moom. bi ñu màggal Touba rek am na ah. sama ndaw soo xam si ni sama xarit la. waaw ah. bi may dëkk Cambérène. Mhm. soo mos na dem ci banque bi moom moom mooy kii waaw dafa jotoon a ëppal xaalis bu bari. waaw man maa ko mujj dimbali mu fay ko. yaa ko dimbali mu fay ko. wallaay ci saayir wala ci baatin. non sama poos. ah sa poos ok. man maa ko dimbali mu fay ko. dégg ngeen ko kon koy nekk ci banque yi nii di tubaab tubaab toog noonu de sóoraale defaru gettaru ba nga xam ne que sa ay ku ñëw wan la ne la signal ma fii nga ne ko pour lan kii ne la jox ma fii nga ne ko pour lan wan ko ne yaa ngi ànd ak sa sago parce que am na nit ñoo xam ne dañu nappaate jël ah. seen kii di test ba xam bagage yu garaaw yoo xam ne moom man dama yu garaaw yoo xam ne moom koo jox loxo boo ne defal mu def ah. waaw te yooyu léegi <laughs> ah. léegi kon am na ñu loru ci dëkk bi ba muy tudd yaa leen lor ah déet man moom Cheikh <laughs> <laughs> Cheikh li mu wax garaaw na de parce que loolu ko jox saaru petit gi nii. waaw mais man nag damay ah. joxe mais li may jox. waaw ah. danaa ko xool bu baax. xam ki ma koy jox baax xool ki ngay jox jox kan la bu baax a baax a baax. Ah. ok parfum bi lan day ubbee ma ñam bu dee bu dee xew di <laughs> ah saay man fi léegi booy naan booy kii acca ah bi damay ubbeeku léegi. xew <laughs> di ñëw. barke rasulaay dañ bëgg a tàqale lu yaas ah. kon daal jigéen bu jëkkër ji nay tamit man boo boo ko bu joxe moom da lay joxe. <laughs> seex jox en keroog bi ñu ñëwee dama ne la maanaam boo ànd ak nit tey ngeen ñëw bu la neexee fii ci saal bi nga toog xaar ma. waaw ma fas li may fas su neexee yàlla bu ma ñëwee. Mm-hmm. su ma la joxee boo ne ko tegge sa loxo boo ne ko defal mu def boo ne bàyyil mu bàyyi. yow de mën ngaa régler problème mu réew mi quoi. waaw ah, bari na lu mu man de wax dëgg yàlla am loo xam ne man naa ko mais nag. Mm-hmm. jàppit sëriñ it da ngay leeral ne du ñëpp nga mën a jàpp xam nga lu tax. waaw <laughs> waaw nit a ngi ñëw ci yow ne la dama bëgg nga defal ma kaaraange yoo xam ne saa nga du ñëpp a bàyyi seen bopp. xam nga saa nga jé boo na jàpp ñëpp na mm-hmm. it am na ñoo xam ne bawuñu seen bopp ba nga mën leen jàpp. Mm-hmm. liggéeyal naa fi nit. Mm-hmm. kilifa gu mag a mag a mag. waaw ba ma ko liggéeyal la kilifa tukki ba léegi kilifa gi ñëwagul. ba léegi ñëwagul loolu lépp ci xeetu gàllaaj lay doon ak xeetu defaru. xeetu defaru li ma leer bu leer bu ñu gisante woon ñoom ñaar jeex na te ba nii may waxee xam nga ki may bu baax. ba nii a tegante ñu ñaar. Mm-hmm. comme naa fi ngay waxee ay code la. la quoi sa ah. suuf say bopp. Ah. Eh, sëñ Modou léegi wàllum ngóora nag noo def moom. ah ngóora moom nee xam ne que dugg nañ fu ne pour ngóora mu leen ak ñoo xam ne que tamit dañuy xeeb leen yor xeet boobu daal. bari nañu bari ñoo xam ne nag. Mm-hmm. sëriñ see leen yàq. sëriñ see leen yàq. waaw nu mu leen man dama mas am benn xarit. Mm-hmm. mi ngi nekk ci leen di jaay. li may wax nii nag man defuma ko. waaw mais bu ma doonoon triant mën naa ko def te gis naa ay ay borom yi sant. Mm-hmm. di ko def di ko def. am na doom yu tubaab yi jaay. waaw dañuy jël dëbb ko sunguf mm-hmm. man lii may wax la ma ko gis. Mm-hmm. gis kilifa gu sant sant bu bu see bu ba wóor sax. sant sant bu am doole ci ci réew di ko def di ko jox ay nit ñu koy naan. nit ne ma tey ñëwal di jënd ci doom di ko jox nit ñi man am naa lu lu gën a gaaw loolu. te man sama dara àdduna jël lu ma may ay doom di ko jox nit mu naan te gis naa ay nit ñu koy naan. Mm. man boo ñëwee du ma la jox sunguf. waaw du ma la jox ren. Mm. li ma la jox daal mm. soo jëlee saafara bi dem toogee ko yàpp ñetti yàpp yu bokk yàpp ba yàpp xar yàpp nag. lekk amul benn sunguf boo xam ne danaa ko nit mu naan. xam naa ay sunguf. waaw du ma ko jox nit. doo ko jox nit sunguf càngat daal ngay joxe. waaw càngat daal am naa ci ay sunguf yu baax. Mm-hmm. mais daal ne ñu bari nañ maytu. nan mooy bari na koo gis mu topp topp diw jox na ma garab gi ba ma ko naanee sama kàttan tubaarkàlla dama dem ba mujj mënatul dara. fekk waaw njafaan yañ cay dugal mooy indi erreur. Hmm, te loolu nag sëriñ bu sérieux bu ko def buñ la ci jàppee di nga xam. man nee naa la man nee naa xam sëriñ sëriñ sëriñ ñu koy def. jeex man sëñ Mourou maa ko wax. dégg li mu wax moo tax ngeen bàyyi xel baax mais yow koy defal wàllu ngóor moom da nga koy defal ci alxuraan lay jaar quoi. non du alxuraan mais. ay jat la wala samay secret la. Hmm. loolu mbir la yoo xam ne man dafa am lu ma doon dégg daara jabalu dunia kulum daxala naar illaa xam sata jabalu li anna makkata fii xaw ma yooyu daal loolu mais gisatuma ko ko xam naa xoolaat ñi ma bokkaloon daara naa ko laaj ñoom laaj njigal ak ñoom xaadim mbàkke yeeg naa ko laaj gars yi ba xam boobu daal ma ah. bu ma duggee ci yi nag damay dóor de jéem maa dugg ci wàllum sëriñ si mënu ma waaw ah. damay feesal commande rek am na mhm. fa an yoon yi bi xuwatin mhm. boobu baax na mhm. ànd ak euh, ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim waaw ah. ku a formaté cat nag cat nee naa la hmm. ne dama ko jeexal na fa ne amatuma ko moo tax waxuma ci waaw lamiñu nag wun rey ci dëj nag wun rey ci nag woo xam ne nagu dëj lamiñ boobu moo ko amee dëbb ko sunguf waaw am na sunguf yi ma koy booleel boo góor la boo ko sangoo ñeenti fan hmm. ci àdduna cat na la cat wàcc na la su dee jigéen ñetti fan jigéen ñetti fan nee naa la fi may wax ak yow man fu ne laay dem fu ne laay lekk loolu rek mooy sama gàllaaj man li may li may jëfandikoo daal laay jox jox nit ñi lenn la am lu may jëfandikoo loo xam ne du ma ko jox kenn muy li may toog di wér li may dox di wér waaw wér bi ngay coono bi du ma ko jox kenn ci àdduna hmm. ah sama doom sa doom jeex na kon te ca kaw mu mel na mu war a mel sax nag hmm, ci kaw mu mel na mu war a mel sëñ Mour Gueye Diwane Sylla léegi koo xam ne que dafa soxla bayra nag bayra moom ci boppam bayra nee naa la am na façon yu bëri yu bokkul am na bayra yoo xam ne nit ki day am tur rek hmm. mais du am dara am bayra yoo xam ne di nga di nga di nga di nga di nga siiw. Mm-hmm. mais doo am xaalis. doo am xaalis. Bayra ñaari heure bokk ki yoree. Mm-hmm. mais comme ku mel ne Sonko Bayra lan la yor loolu Bayra lan la. waaw ah, Sonko moom la yàlla la. ku yàlla dimbali ku yàlla dimbali loolu moom man xam naa ko ci moom. Mm-hmm. nit la koo xam ne ndimbalu yàlla la am. yàlla dimbali na ko ndax ku ne xam na ne mi ngi jàmmaarloog loo xam ne. bari na ci Sénégal ñoo xam ne ko kuñ ko jàmmaarloo ñaari fan jóge kon yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla defal président Macky Sall jàmm defal euh, Amadou Ba jàmm defal Sonko jàmm defal. Euh, ñëpp a war a jàmm defal ñëpp jàmm. Sonko nag man boo isee bëgguma mu am problème dama bëgg gis nga jub dafa jafe bu nit jubee ba am fu mu àgg. Mhm. njubam googu na am résultat. Mhm. bu bum am problème quoi ci njub gi. parce que bu ci amee problème rek. Euh, boo liggéey am na ñoo xam ne dañuy gis ni jub est-ce jar na ko. xam nga mujj jamono ku ñuy seen seedeel jub nag wax dëgg yàlla. amal jàmm daal mujj jamono du yomb. Hmm. mujj jamono bi nuyu naa la bu baax a baax. Hmm. dégg jamono bi ñu nekk. du yomb nit ku jub di jiite. Hmm. mujj jamono bi ñu nekk maanaam du yomb nit ku baax. di jiite réew yi. lu jafe lay doon. lu jafe nit ku jub di jiite. moo tax daal nañ ko ñaanal rek. te li ñuy séentu ci moom mu am rek. yàlla bu yaakaar tax loolu rek am solo. yàlla na Sénégal gagné daal incha allah ci bépp côté nag. Ah, ndax bu toogee réew mi baax. Mm-hmm. Macky Sall gagné na. Mm-hmm. moom gagné na. jeex na man gagné naa keneen keneen gagné na. yàlla na Sénégal gagné. yàlla man gis nga xam nga Sénégal dafa naqaree wax surtout côté politique boo seedeelee nit dëgg ñu ne dafa nga wax li léegi xalif général léegi ñëpp ay ànd am problème ba léegi mais nag dëgg moom buñ koy wax. waaw léegi dañ koy wax te yàlla tax léegi xam nga côté boobu. Mm-hmm. li ko waral nee naa keroog nee naa la am na côté yoo xam ne Sénégal boo fi bëggee wax. Mm-hmm. soo ko waxee rek ñu ne kii dafa dof. dafa dof wala dafa. Mm-hmm. yabaate wala dara. Mm-hmm. xam nga tey sénégalais yi warees na leen dimbale. ndax tey da ngay yegg sa xeen saay gis taximan. wala koo xam ne si ni day liggéey ni mbaam. mais bu feebaree sax doom lu mu fajoo. doom lu mu fajoo soo doom bee corniche bi ñaata immeuble nga fi ñoo xam ne 2012 wala 2017 lañ nekk ci nguur. doon ay milliardaire ci loo xam ne dara tegewu ci yoon dañu waxante dëgg xam nga gis nga réew bu ñu ci nekkee mhm. man politique wu ma mhm. Macky Sall du mooy niinal sama ceeb du Sonko moo koy niinal sama kurus gi mooy niinal sama ceeb mhm. bu fi Sonko toogee yéen mooy continuer di ko niinal bu fi keneen toogee yéen mooy continuer di ko niinal mais réew amul kii daa war a am xaalis amul kii daa war a ñàkk xaalis ñëpp ñoo war a bokk yem xalifa général yi nag amuñu benn problème mais problème bi dama la wax li mu doon wax li mu doon man dama la koy wax nga xam ko bu baax a baax a baax sëñ Karaasi la mi ma newoon jege ko. Mm. sëriñ bu ko barke bëriwul. Mm. ba ma ko jege sa ma lépp dama ko rafetal bari na ñuy jege sëriñ nag dañ naan naa jege sëriñ bi defar sama àdduna. defar sama am na noon boo ñu bëggee defar sa àdduna rek. mën nga yàq sa doo wax dëgg. Mm. tey lépp day jeex dama la bu ñu ko sëñ Sidi Muxtaar mbooloo mi da daan fees dell. ñëpp tey ana loola tey demee doo ko boo demee ci isa wàqan xatit yàlla wax na la ci lu bari àdduna day yëkkati ñi wàcc ñi risuma Ablaye Wade ñi yàlla yëkkati woon anañu wàcc nañ hmm. soo demee ci uh, ñii fi nekk nii dañuy hmm. wàcc hmm. adduna nag des saa nga gis nit koo xam si nii day diis le mbubu lool rek mbubu rek la rëy le dara am rëyut des gis ku oyof mbubu lool te diis la ca yàlla lool loolu lu mat a bàyyi xel la kër sëriñ daal nañ bàyyi xel ne sëriñ Touba newoon na sëriñ ci na ngeen bàyyi xel ne li banki tànk bankutum xel ku ne xam na ne fi ne fi réew toll nii bu njëkk nit ñi mu wutoon toog di wax ci yoonu murit wala ngay wax ci wenn yoon waaye léegi am na ñoo xam ne si ñeme nañ sax lu raw wax. Mm. te loolu li ko waral mooy yenn ci yi nga xam ne mooy am te ay nit di ñi ko ñi ko xam nga Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. ku jàng mbiram dëgg ca mat la wu xaw seen. mu dër sax. bu toppee alxuraan ni mu ni mu toppee xam nga science heure bu demee ci alxuraan rek. Hmm. day dëppoo ne ah yàlla mii kat li mu wax dëgg la. Hmm. même bu ñu toppoon si Ahmad Bamba ci mbindam science day ànd ak moom. Hmm. adduna nag day jeex. te ñu ngi mujjantal gi ndax ku ne xam na ne fii adduna toll. ci mujjantalu adduna lañ nekk. bu fekkoon ne temps bi mat na tuuti. ma leeral la tuuti ci isa waqaadi. macha nee na wa saabiquuna saabiquuna ulaaika almuqarrabuuna hmm. fi jannati nahim hmm. sulatun min alawalin wa xalil min alaxirin ala sururin mawdunatin mutakin alaya mutaqabilin hmm. dégg nga waa àjjanay nahim li mu wax ci ñoom lam leen tirangaale lépp dégg nga ko ah waaw sulatun min alawalin wa xalil min alaxirin nee na àjjana jooju nga xam ne mooy àjjanay nahim nga xam ne ñii dañuy gis yàlla di dégg kàddoom mooy ñi nga xam ne dañuy am àjjanay nahim waaw ah, ba lim leen fa dig lépp yëttëfan léegi bi daan sas Modou ah xam nga jàng <laughs> jàng nañ jàng nañ mais eh, eh, dañu concentré wu ci li ñu da ngaa di jël benn hmm. kii rek waaw boo demee ca mu ne waa asxaabu yamini ma asxaabu yamini fi sidrin maqdudin àjjana yi ñi nga xam ne àjjana yi négociation rek la xam ne hmm. Seydina Mohamed mooy dugal hmm. yërmande bi mel ni Ahmad Bamba jàpp ci ñu ram nga dem ci nag waa asxaabu simaali ma asxaabu simaali fii sa moomin wax mi yàlla nañ ci yàlla musul mm, mu ne li wér daal mooy waa sawaram mm. sawaram mooy seen dëkkuwaay dégg nga fa wax famaa lay una butoon fa saaribuna alayhi min xamim la goo xam ne doom bi sax boo koy watt xam nga tey doomu mango boo koy watt mu rafet nii da ngay kontaan mm-hmm. waaye doomu min sajirin mm-hmm. mm-hmm. soo koy watt war lekk sax fitna lay nekk. soo koy lekk. fitna la fitna la. xamim. Mm. mooy bu ngeen paree da ngeen dem ci déggum xamim déggum ndox mu tàng. Mm. naan ca man nag maa ngi bàyyi xel loolu. Mm-hmm. ci li may jëflante ak nit li nga jëflante ak nit ñi. yàlla yàlla baax bi ciy tegewaat tey. Mm-hmm. ci la ne afaraayitum maa tumnuuna antum taxluquunahu am nahnu xaaliquun. Mm-hmm. xanaa du man maa bind nit. ci ndox mu ñàkk solo. xam nga nit cosaanam dafa ñàkk solo. nit koo ne da solo mu mer mais. ki la ki la ci ndox mu ñàkk solo moom def ko deret nga jóge ci mu def koy lumbu yàpp nga jóge ci mu def ca mu def ko génn yax génn ay ndox yu bari ci sa yaram te ndox bu dee rek la nga yëg ko kooku bu lay waxee nga la am na àjjana ak sawar war nga koo gëm. war nga koo gëm yàlla ñu yàlla defal jàmm daal yàlla defal jàmm defal ñu tawféex. suturaal jàmm ñëpp. Mhm. te dimbale leen. te yàlla rek tax jërëjëf. amiin jërëjëf. ko daal ku ñëw ci noob ñetti fan. ah ak noot ak xeet boobu yëpp daal ku ci ñëw ay ku wuti kéet ku bëgg bayra ku bëgg kaaraan ak bayra nit tamit lépp a ngi fi. Bayra Ndiaye tamit ay oto ki jaay oto yi lépp a ngi fi seex. Hmm. kon kuy doon parking oto ne la bu jaree nga nga jël ci ñaar appal la ne la di nga lépp am na am na fi moom du dara. Hmm. ku conteneur bi nag. ah yooyu moom ci liggéeyu dañ koy tëju fan. dañ koy tëju ñetti fan. Hmm. di nga dugg xalwa tamit kilifa yi mag yi nga xam. Ah, dugg leen xalwa yàgg nga ma woo man ci xalwa. waaw rek na bari na ñu koy defal nee la kurus laa ëpp lu may jëfandikoo ci yeneen yi. kurus nga ëpp looy jëfandikoo. Mm. jeex na kon sëñ Modou Gueye diwaan si la léegi waxtu benn dab looy tàggoo bu dul tàggatoo ak koy sant ko gërëm. waaw ah, léegi damay. Mm-hmm. ak loo gis ne bëggoon nga ñu dugg ci te dugg dama lay sant. Mm-hmm. waaw man moom xam-xam bu nit wax rek. Mm-hmm. am naa ci xam-xam li ma def daal mooy du ma rey nit. du ma yàq nit. du ma def lu bon. ay ñoom émérité yooyu da nga koy faj. émérite du ma ko faj ndax moo may bëgg a rey. siti ah. <laughs> gis nga yëngatu rek moo tax ma laaj <laughs> du ma ko faj ndax moo may bëgg ndax toogaay bi may toog di wér. <laughs> dama lay dëgëral ne nag si bari na sëriñ si naaweq ndax man sama jëm uh-huh. dem naa sax tey jox leen xaalis mais gisuma rek ma wax. gisoo dara ci résultat bi jeex na kon kon naa ko wax Cheikh Bara Ndiaye mu jàpp ci. waaw Cheikh Bara moom ma garab bu baax. joxoon na la garab bu baax. Cheikh Bara na. Uh-huh. waaye wax dëgg yàlla dama ko bu ñu demee ndeysaan daf lëng Mm-hmm. waxtu ma ndeysaan ñu waxtaan lu bari tàmbali waxtaan ci xam-xam mu ne ma da ngay ñëw sama kër mm-hmm. borom baax la ma ne ko danaa fa ñëw incha allah ku baax ku baax sax sëñ Baara ak sëñ Maxtaar Silla ak sëñ Mara Mara Ñas mu sëñ Saali sëñ Mara Ñas Silla sëñ Maxtaar Silla Maxtaar Silla bisam bi ñëw na sax léegi nii ñëpp ay borom baax lañ macha allah Maxtaar Silla mat nañ dix ans Cheikh Baara noonu Mara Ñas di ñaan yàlla yàlla def jàmm mm-hmm. def xéwal def sutura dimbale Sénégal yëpp nag ci seen i jafe-jafe amiin waaw kon ñu daal di def ñaan rek incha allah jërëjëf amiin amiin danga sant bi xes ni suraati ko bismillahi laxan sa addoo baraaxiya wa asxaabihi kullan wa addoon saraxi salaamun minni aska wa aska wa atyebu ila abdi dax mas wa iyaaka yaakar dam ajibo liya bayn di alama fi ardina wa wa ma fi bonhori laahi kullal bilaadi dafa xan bi sara yaa sahibal jabal doxaan xadamatu man kulli ahliya bayn la ma hinda fa wa sanra ya rakibal fil muta'ammim ayati dafa tasir sahbana wal fil wahid doxaan lo fi kal waqt ma hin ya kasiru aslam al makirin jami'ahum ala kulli waqtin iqbala wusul ya yakunu khadiman li bi jalbil jama'at wal arsaq wal raq min kulli jinsiya wa kunu khadiman fi qada'i al hawaij wa qudum radi asrah al barakati fi sami muriyahi wa a'duruni bi jalsatin atuni al aqbar min kulli kawniya ayna bis baqahu ayna bida ayna bidi ayna kawrusin ayna jaadisin ayna maadisin ayna kamaadisin ayna samaadisin tawallayhin asrahin min albarqil qatifi wa fi waqtin atini jamihal asnaqi amwala dunya amwala dunya amwala dunya amwala dunya amwala dunya bi xaqi xamim xashi xaaf barke Seydina Muhammad ana yàlla def jàmm xéwal amin sëñ Modou Gueye diwaan si na Cheikh Cheikh kii Ousmane Tall Pikine Ousmane Tall Pikine waaw sëñ sama xarit la lool. Julien Jémé moo ko ñëw mi ci station xar yàlla ci ginnaawu jàkka ji rek noonu Julien Jémé empire de l'élégance moo ko ñëw bu baax a baax a baax a baax numéro bi ngi noonu ah. ay eh, yow daal Cheikh a ñëw kii ah ki ñëw. Ousmane Tall Ousmane Tall. waaw ah. na kon rafet na bu baax a baax xew dikk la xam na Baye Mass da bëgg jël. Cheikh. Euh, hmm. dina baax. dina baax. yàlla dina indi am wala dunia. incha allah am wàllu dunia moom bu ñëwee rek lépp ñëw na. xaalis ñëw na. Uh-huh. àddina ñëw. Hmm. lépp lu neex rek day ñëw. ngeen abonné Tektal TV kon ah. ñëpp ay abonné bu soobee yàlla. bés bu rouge bés bu ñëw nga am ko. kum neex nga abonné kum neex bul abonné ni ko Wally Seck waxee bu baax a baax a baax a baax. Euh, gërëm nañ tamit euh, Ousseynou Ly Allemagne mami d'enfant France Serval Espagne euh, Serval Espagne Fat Diop Amérique Mangasa Sidi Matar Mangasa mi Paris gërëm nañ tamit nu mu tuddati kii Malick Jité Grèce. moom ak Ngaye Mexe ak euh, Abdou Khadre Wade euh, Barcelone te nekk Gandiol fii ci Saint-Louis moom tamit ku bëgg tegtal la day partage rek El Hadj Ndiaye Germanie ñi bëgg tegtal daal dañ bëri ku bëgg lim da ngay jum bu baax a baax a baax xewal dikk loolaa nga dakk yoon bu mujj ci biir émission bi numéro sëñ Modou Guèye diwaan si la numéro yi am na whatsapp nag bu baax a baax 77 872 41 94 77 872 41 94 beneen bi 76. 329 50 99 76 329 50 99 sëñ Modou Guèye diwaan si la nuyu naa tamit sa benn xarit jey na ba jëbaate Allemagne maa ngi koy fàtte jey na ba jëbaate Allemagne ak mami d'enfant France mami d'enfant sama xarit waaw ñoom sama xarit lañ gis nga ah. baax a baax a baax kii nga tudd tamit léegi sama waay bu baax la dafa lewet moom Mara Niass sëñ Mara Niass ku baax la ku baax la ku baax la maanaam dajee nañ maa ngi moom mm. corniche bi benn bis ma yor sama oto cër bi mu lay jox ak yëpp dafa am cër mm-hmm. teg ci dafa oyof. teg ci dafa nekk taalibe Serigne Touba boo xam ne. Mm-hmm. ku am ku am taalibe la. maanaam jàllam. Mm-hmm. melokaanam day dëggal ne xol bu rafet day jàllale nit. non sëñ Saliou la bëgg. xolam dafa rafet ñoo bokk ci sëñ Modou Boussa Dieng moo tax. yal na ko yàlla defal jàmm ak taw <laughs> bi gisee gars yi ko dugal feneen fa ma ne ah kii kon moom kii man sama mbokk la di. sama kër sëñ Modou ah, Boussa Dieng laa bokk borom baax la. Mm-hmm. baax la wax dëgg yàlla. macha gërëm nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ko wér bu baax a baax a baax xewal dikk loraange dakk Tektal TV euh, joxe gërëm nañ équipe technique bi àndal moom it docteur Wade bu Casamance nekk ci euh, borom këru Ganga Wade euh, waa ak Aida bu Enampor ah Aida jafe moo tax Aida Manga ah Aida Manga gërëm nañ tamit Baye Massamba Diop petit omikana yaayam Baye Massamba Diop am saay baayam mandawaay magam si Abdoy Rakama Euh, nekkoon ci beneen kii bi Petit Sow Gaw Sow borom këru Rahma Rahma nu mu sant <laughs> am Rahma Sow lay sant Rahma Ndiaye waaw Rahma Ndiaye Petit dugg na cour des grands léegi vingt heures ku ko woo doo ko jot doodu seetaane di filmé yooyu day dem tëddi nekk ci jàpp gis ko gars yi day raar bu baax a baax Petit Sow nekk ci soxna may Diop ci réalisation bi gërëm nañ sëñ Fallou Mbacke Diop ak alaaji Suluxu Ndiaye ak soxna Seynab Diop <laughs> ak nijaay Fat nijaay Cheikh Jaxate ak soxna Fat Jaxate ñëpp Tektal TV ak maam Jaxat Euh, ak Tafa Jaxate gërëm nañ ñëpp ak waa Ndemeen yëpp xewal dikk loolu daa ngi sëñ Modou Guèye diwaan Sine jërëjëf.